الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوتي تي في جسان فيدوبي يا أيها الناس ارجعوا إلى كولخة سيدي عثمان يسوتي جاي برهما زونو ريني برم نهري لري مونيو وتي باي سقو سكر تق من كاسري برهما الله الله الله الله الله الله صارما واسنى الغواني واعتضل ذكر الأغاني صارما واسنى الغواني asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki ñu ngi leen di ziyaara bu baax ku nekk sa tur ak sant leen wàcc seen wàccuwaay ñu ngi ci boutique Melo Pay bi Euh, mu dem melo pay bi nag buñ ko waxee euh, kenn ku nekk dana xam melo pay bi mooy lan ci taalibe baay euh, melo pay bi mi ngi nekk fii ci dakaar ci en face pharmacie Bourguiba bi ci côté Castor bépp taale boo xamante ne nii soxla na lu jëm ci wàllu pay bi bu ñëwee rek dana ko fekk incha allah melo pay bi ñu ngi yëngu ci domaine yu bëri ñu ngi yëngu ci mbaxana xawsa yi képp koo xamante ni taalibe la nekk ci dëkk bi te soxla mbaxana xawsa mbaxana nigérien yi rek bu ñëwee fii dana ko fekk incha allah mbaxana xawsa yi mi ngi nii qualité bu mu ci bëgg rek am na qualité yi dix mille la commencé jëm ko ba soixante-dix mille daal pay bi tamit mi ngi fi daal Cheikh Mahi Cissé yi ak euh, yeneen façon daal yi même mbarakis yi aussi tamit mi ngi fi disponible euh, même mbaxana baaba la mi aussi tamit mbaxana marocain yi mi ngi fi disponible kurus yi aussi tamit kurus façon kurus boo leen bëgg rek bu ngeen ñëwee di ngeen ko fi fekk incha allah parfum aussi tamit mi ngi nii euh, parfum oud yu neex macha allah yoo xamante ni ci melo pays bi rek nga koy fekk waaw jàllaaba yi tamit mi ngi nii jàllaaba marocain yi am na ay transparent am na yoo xamante ni coton la am na yoo xamante ni nylon lay doon am na aussi trois pièces yu marocain yi yoo xamante ni yu rafet original yoo xamante ni bu ngeen ñëwee fii rek di ngeen ko am ci ni mu gën a xéewalee incha allah Euh, même loolu tamit manto transparent yi mi ngi fi jàppandi mi ngi nële ci kaw manteau velours yi comme bi ma sol nii yii yëpp mi ngi fi jàppandi bépp taalibe boo xamante ni soxla na ko bu ñëwee fii ak dana fekk même mbaxana Oustaz Barham Diop aussi tamit mi ngi disponible ni waaw lépp loo xamante ni melukaanu taalibe la rek boo ñëwee fi melopé bi rek da nga ko fi am ci prix bu mu gën a yombee incha allah yéen ñi nga xamante ni yéenay laajte numéro bi. numéro bi mi ngi nekk 78 018 17 71 képp ku ñu si contacter rek danañ jëflante gi ak yow incha allah ci anam bi mu gën a rafetee bu neexee yàlla ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel bu baax macha allah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. allah salaam auzu billahi min acheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin arman rahim maliki yawmi din إياك وإياك نشهدنا صراط مستقيم تراد الذين أنعمت عليهم خير المغضوب ولا دالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخادم لما سبق ناصر الحق ولا والهادي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدر مقدار عظيم gannaaw bi ñu santee yàlla julli si yonent bi ngi gërëm suñ sëriñ Maolana Cheikh Ahmad Tidiane di gërëm xalifaam ba Maolana Cheikh Ibrahim lu mag lim ñu indil tey nag ñu ñëw fii ci wàccaayu yow ma zikri wa shukri wa zikra nga xam ne Cheikh Ousmane Niass moo ci ànd ak ay xaritam ay ndawam ay mboroomi ndawam ren mu nekk di cinquième édition bi di am ci gannaaw gàmm gu mag gi fële kër El Hadj Mohamed Zeynabou quatrième jour après gàmm gu mag gi kay taxawee di Cheikh Abdou malik ibnu Cheikh ak mboolem njabootu Baay yi chaque année nag dañuy baaxoo xool kenn koo xamee ni référence la ci jeunesse bi ñu jël ko tuddee ko programme bi du xaalis mooy tax ñu koy tuddee waaye lenn rek di xool euh, génne ay wane ay jikko yu nekk ci moom ngir ndaw buñ ko gisee ñu ñu roy ci moom loolu kooku mooy kan Cheikh Mamoun ibnu Malaji ibnu Papa Dam ibnu Cheikh ñu gën koo xam ci euh, euh, Cheikh Mamoun Asnar moom lañ tuddee programme bi nga xam ne ni ndaw la lu bëgg xam-xam di jàngkat d'ailleurs bokk na ci li tax sax mënul teew fii ngir euh, rek ànd ak ñun ci fuglu bi waaye nag euh, mu daal ñuy bàyyi ki nga xamee ni mooy xaritam mbokkam nijaayam du Cheikh Taha bu Thierno Assane Dème mu war a wax ci kàddoom kon sëriñ bi nañ ko jox kàddu incha allah mu wax ci turu Cheikh Mamoun euh, Niass tamit joxaale jeunesse bi benn message boo xamee ni tey jii buñ ci jógee ñun ñëpp danañ ci jàng fogluwaale programme bi nga xamee ni ñu ngi koy waajal kon bisimilah yaa seydi bisimilah rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammad ibn wa ala alihi wa ashaabihi wa yi ñuy seetaan ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen Euh, ndokkeel ci weer bu màgg bi nga xam ne moom leen dëg merci muy weeru gàmm di yàlla ñu mu fekk ñi ci jàmm ak salaam ñu gàmm ko ci jàmm te am ci ngërmaane yonent bi sallallahu alayhi gannaaw loolu nag maa ngi gërëm bu baax Cheikh Ousmane mi nga xam ne mooy borom bés bu màgg bi nga xam ne mu ngi ko tuddee yow mu zikir wa shukur wa zikra bés boo xam ne daf ci dajale mbokk taalibe yi tudd yàlla sant yàlla ci xewal gu mag goog nga xam ne may nañu ko te mooy Cheikh Ibrahim waaye tamit fàttaliku wante fàttali lante loo xam ne moo ñu jëriñ ci yoon bi ren nag mu boole ñi nga xam ne mu leen darajaale bés bi suñ jarbaat suñ xarit muy Cheikh Mamoun xam ne dëgg-dëgg ndaw la waaye ndaw lu baax la ndaw lu bëgg xam-xam la ku tegu ci yoonu mag ñi la mu woo ma sàkku woon ci ñun ñu wax ci turam pour gërëm Cheikh Ousmane ci tànn bi nga xam ne tànn na ko ci boole ko ci xéwal gu màgg gi nga xam ne bisu sant la bisu zikkar la bisu fàttaliku la dana kontaan kontaan koo xam ne lottu na ci wax ko ci làmminam waaye nag mun na lu ñaanal Cheikh Ousmane mu ngi koy ñaanal bu baax yàlla la defal ko tawfiq bés bi ñu àgg ci jàmm te yàlla may ko ci ndam te feeñal ci barke ak karaama gannaaw loolu it ñu ngi ñun ci suñu wàllu bopp ñu ngi gërëm Cheikh Ousmane bu baax a baax ci taxawaayam ndaw la waaye ndaw loo xam ne ku teg tànkam ci euh, fu mag ñi tegoon seen tànk di ittoo xam-xam ittoo taalibe yi fuñ mën a nekk di leen fekk ci seen jotaay yi ci seen euh, programme yi di fàttaliku ak ñoom di waxtaan ak ñoom di leen gindi di leen tëbbu te loolu mooy doona gi fii mooy xam-xam ak njub ak rafetal jëflante ak mboolem mbindeef yi ci loolu lañ ko xam muy ku baax ku am itte lool ci mboolem doomi aadama yi dëgg-dëgg dañ koy encourager bu baax a baax a baax ci lii ndax jotaay safaan bari na lool ci réew mi ndaw la ñu ci buntu àddinaam mënoon naa tànn leneen waaye tànn na ay yoonu baayam tànn na ay yoonu maamam te looloo ko war kon dañ ko cee war a sant araab yi dañ naan la shukru alal waajib nit bu defee lu ko war kenn waru koo sant bàyyi na araab yi dañoo juum ku def li la war rek kooku lañ war a sant ndax bu ñëpp defoon lu leen war àdduna benn problème du ca kon ñu ngi koy encouragé bu baax di wax képp koo xam ne ndaw nga nañ góor góorlu bu baax a baax a baax dellu ci tànk bàyyi ak maam yi dëgg la ndaw lu nekk war nga ànd ak sa jamono dox dox bi nga xam ne sa jamono moom lay doxe waaye sa jamono lum dox dox dox bul fàtte tànk yi nga xam ne moo baaxaloon say waajur moo baaxaloon say woy dawe ndax la baaxaloon démb loolu rek mu mën a baaxal tey te dara baaxalul leen lu dut nanguloon Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu nga xam ne moom la yàlla wàccee mu nekk jëmm njëriñ di xeet laa kon ñeel xeet bi nekk bunt boo xam ne ku jaarul ci moom doo xam sa borom te ku xamul sa boroom perte nga mu nekk loo xam ne ndaw lu ne war na cee góorgóorlu fexe naan ci kaas yooyu gannaaw boo naanee nag nga fexe yëkkati sa itte di dox sa seyru di góorgóorlu ci jaamu yàlla di góorgóorlu ci xeex ak sa bakkan ba fa nga xam ne mag ñi àggoon nañ fa ci Mawlana Cheikh Ibrahim nga mën fa àgg ala kulli xaal Cheikh Ibrahima moom mës a dañ di nekk géej googu nga xam ne moom njëriñ lépp ci géej googu la nekk mag ñi ñëw nañ nooru ci géej googu lab ca lañ ca mën a am lépp am nañ ko te géej gi dara yëngatuwu ci kon képp kuy ndaw na nga roy mag ñooñu géem a nooru ci géej googu géem bokk ci ñi nga xam ne buñ siggee dañuy mën a jëriñaate géej goolo géej googu nga xam ne boo ci xasee ba nooru yow dangay ngay faaru dootoo amati waaye bés boo siggee Cheikh Ibrahim rek ngay nekk ay waxam ci ay jëfam ci ay melokaanam te ku nekk Cheikh Ibrahim rek jarut ngay propagande jarut ngay wax dara nit ñi ci boppam ñoo lay bëggal seen bopp ndax nit ñi bàyyi rek lañ bëgg ndax bàyyi ku bëgg yàlla ku ne rek bëgg nga bàyyi ku bëgg yonent bi ku ne bëgg nga bàyyi ku bëgg Cheikh Tidiane ku ne bëgg nga bàyyi ndax ci bàyyi ngay gisee ñoom ñëpp kon nag ku nuuru ci géej googu noonu jeex ci bàyyi effacer sa bopp ci biir baay bàyyi rek ngay doon bu ko defee nit ñëpp dinañ la bëgg niñ bëggee bàyyi kon ndaw ñu nañ yëkkati seen itte bañ a yàq seen temps ci yàkkamti ut wut sa ki la neexee ci oote ci yàkkamte feeñ te sa heure feeñ jotagut yàkkamte oote te amagoo ndigal yàkkamte oote te pareegoo ci sa bopp loolu lépp bàyyi daf ñu ko wattandikuloo nee na bëgg feeñ dafay tere feeñ waaye képp ku bëgg feeñ jaamu feeñ nga ndax lépp luy feeñ lépp luy maye feeñ rek dangay jàpp ci loolu ba fàtte ne ki nga xam ne mooy feeñal mooy yàlla bu ko defee loolu daf lay delloo ci bakkan te bakkan bu moom nga moom lañ la wax nga rey boo ko reyee dégg nga lenn li rek daal di fa des kon maa ngi dénk sama bopp ci dëkk mbooleem bi yi nañ góorgóorlu ci yoon bii nii di bëril jotaay yu mel nii di bëril di toog di dajaloo di jéem a jàngat Cheikh Ibrahim ci ay mbindam ci ay taarifam jàngat ko ci góor yàlla yi nga xam ne moo leen defaral boppam ba ñoom ñu mujj nekk ay jant di leeral àddina buñ bàyyi dara ci dund Cheikh Ibrahim lu dul nañ ko gës jàng ko roy ko ndax ñu mën cee jëruñu bu baax a baax a baax a baax mën a bokk ci góor ñoo ñu nga xam ne Cheikh Ibrahim mu ngi leen di pokkaroo te du dëñ di pokkaroo ñu mel noonu ndax nee na tukkeem yi coono yum ci doon sonn gannaaw màgget ak feebar ak lépp wan génération bu bees bi naka la génération bu njëkk bi baaxee woon rek loolu la leen doon wan kon mi ngi mel ni kuy wax ak génération bu jàll bu ñëw rek bàyyi mi ngi wax ak yow kon nañ góorlu bu baax a baax a baax a baax xam lan lan la ñu bàyyi bàyyee ñu góor góorlu ci loolu bañ a def suñ bopp ay dof yoo xam ne politiciens yi te ñu dañu nax dañuy utiliser di utiliser suñu image ak di nelawloo suñuy xel dañuy ñàkkloo itte di outil dañuy jox ñuy tayal loolu lépp nañ ci bàyyi xel. képp koo xamantene ni bokk nga ci bay ak noo mën a bokkoo ci bay noo mën a askanoo ci bay war nga am fula war nga am bopp war nga am itte bay moom kenn rek de nga li taxaw lépp moo ko taxawal ci xam-xamam bu bari ba ci itteem nga jëflanteem bu rafet ba ak kawe nga xam ne kawe woon na ko yusufe yi waaw bëtam boobu nga xamante ni lu rek la doon xool loolu doon digle ñu taxawal dara gannaawam yëpp bët boobu lañu amee woon waaye nag ñi nga xam ne ñoo doyloo woon toog rek politiciens yi di leen nax nitu àddina yi di leen jëriñoo waxtu bu nekk ñuy doyloo gi suufe yooyu ah, ñooñu moom ci lu suufe rek ci lañu nekk yaa nañ ci yàlla musal kon maa ngi oo sama bopp di oo mboolem shabaab yi nañ wattandiku loolu nañ yëkkati itte yi nañ góorgóorlu sàkku xam-xam nañ sàkku njub nañ sàkku mbaax képp ku sàkku xam-xam am xam képp ku sàkku njub da nga am njub ku sakku lu bax da nga sakku lu bax alal nag duwoon na kep ku ko sakku am ko man nga ko sakko ci nu la nexé waye li nga wara am rek ngay am boko ko wit it li nga wara am rek ngay am kon nañ sakku njub nañ sakku xam-xam nañ ut bay nañ wër bay nañ doylo bay di moy sama denkané di denk sama bop diko denk dénk shabab yi di ñaan yalla yàlla defal ñu jàmm yàlla def ñu ay taalibe bay xaqan yàlla boole ñu ci borom itte yu kawe yi nga xam ne lu kawe rek lañuy ñuy xool lu kawe rek la ñuy sàkku yàlla buñ xool lu suufee yàlla buñ sàkk lu suufee yàlla buñ doxee doxee ko suufe it ñu ngi ñaanal Cheikh Ousmane xale la waaye nag mag la ci jëf mag la ci jikko mag la ci bëgg lu baax yal na yàlla sàmm ko te saxal ko te barkeel ko yàlla defal loolu mboolem ndawi Medina yi nga xam ne dañu bokk ci ndaw yooyu nga xam ne bàyyi mu ngi leen doon puukare woo ne yu xaadiru nu fityaanu sidqin xad axlasu ilallahi qasdan moo te wala naxyaa yàlla nañ bokk ci ndaw yooyu noonu bi jaaxe rasulillahi sallallahu alayhi wa ci kàddu yu guddi yi ñu foofu noonu di ñaanal yàlla ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah ku kàddu yi am na solo Cheikh Taha Sandem macha allah yaakaar naa ni jox na message bu leer ci ndaw yi te it loolu danañ leen wax ne képp ku gën a bëgg euh, lu gën a leer li wala taalixaat yu gën a neex yi euh, ñu ngi lay jox rendez-vous incha allah ci yow ma zikri wa shukur yow ma zikri wa shukri wa zukra wa zikra ko kat cinquième édition bi euh, buntu kër El Hadj Mohamed Zeynabou Niass ci njiital Cheikh Abdou Malick Ibrahim ñas Euh, quatrième jour après gàmm incha allah kon ñu ngi ci woo mbokk taalibe salaamaaleykum wa wuy si woote yàlla loolu payam mënee si koo xayma li ngeen di wër balaa feeñ ngeen dem fa baraamaaj wuy si li ngeen di wër balaa feeñ ngeen Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak gaal yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi Barahama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi Barahama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla jox leen